asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum waa Safeen seen doom seen xarit ñi nga xamante ni yéen a safoo seen li nga xamante ni mooy Kipeski siste bi la l'enfant série ci Tchiki bi moo leen di présenté émission bu bees tàkk bi nga xamante moom la dajji ci paquet émission bi nan la tudd émission bu bees tàq tàq tàq tàq tàq ak siste bi seen jaar jaar ñu ngi leen ci woo ah, di wax ñëpp ñu bàyyi ko xel ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bu seen jaar jaar. chaque 15 jours ak Sister Bia seen émission jaar jaar. dinaa la teg ci sama plateau ñu fas yéene ko farang fàcce ba mu leer. seen jaar jaar ak Sister Bia. da nga am jaar jaar sa dund la nga dund mu neex wala mu metti sax fa nga jaar ba yegg si fii tey. seen jaar jaar avec Sister Bia. rendez-vous chaque 15 jours. ak Sister Bia ci seen émission seen jaar jaar.